rahim dañuy am mbégte mu rëy di sant suñu borom ci dogalam di ñaan yàlla jataay bi yàlla bokk ci jataay yàlla gërëm di wax rekk ni tey fii ñu toog ci cilmaxa ci ëttub sunu waajur di bàyyi ba siru moom Maama Sekk moom Maam Lat Joor waaye nag dana toog ak sunu waajur di sunu Baay Mustafaa lii sëñ ma wax léegi Mahmoud tënk ko ci kàddu kilifteef ngir alaaji Abdourahmane tey mooy xalifa kër Saaxir Fatma Lat Joor sunu maam mi waral bis bi ay sëtam daje fi ñaan wàcce ay kaamil te mag ña àndoon mag ñi ci dëkk bii seenu njaboot ñëw ci ëtt bii ànd koog ñoom ñu wàcc fi ay kaamil yéen a ko maam Lat Joor waaye yéen a ko njabootu maam Lat Joor yéen a am maam Saaxat ma ak lu sëdd ci ñoom yàlla nu ci yàlla jotal ci bëtu àjjuma ji li ngeen ma laaj léegi nag fii mooy cilmaxa Saaxat Faatma mi waral lépp mu ngi tëdd fii ci saa jinkam Lat Joor Ngoone Latiir juddoo fi kër amut Yàlla la juddoo 1842 ni fukk ak ñeent la dundu di setup saaxeet Fatma moo tubboon ca Matarnu bi ci kokki sunu maam Abdou Abbas des fi dundal dekk bi ba sekk ñew andi ko ak mom joge fi njaboot gi des fi di ko dundal ba tay mu tegu ci loxol rahman Diop muy Serigne Cilmaxa waaye di grand Serigne de Cilmaxa di famille askan saaxeet Fatma tay mo ci mag Matar Ndumbé ko jur Abdou moom Mama Soxna Mbay géej ba te Mama Soxna Mbay ak Saaxu Soxna Mbay ak Matar Ndumbé Soxna Mbay ma duñ soxna ñaan seen baay Saaxu Fatma la baayam tudd ma duñ soxna ñaan nag moo jur Saaxu Soxna Mbay mu jur Lat Joor ngeen Latiir kon ñu la dëkk bi tëddee Lat Joor fii di dëkku maamam sanc ko waaye bokkoon na ci fi nga xamante ni fi la daan jóge ànd ak ay bokkam ngir ndamal askan wi waaye ngir ndamal Sénégal ngir ndamal Afrique kon ci fi njaboot gi desee sàmm loolu ba tey ñu koy fàttaliku jëf ji démb ma rafet waaye ñoom ñu koy fàttaliku it jar na noo ñaanal lii sëñ Mahmoud wax léegi jóge ci màggalu Touba. le 28 le 29 le premier ak le 2 le 3 ñu ñëw tey fii wàcc fi ay kaamil def fi consultation gratuite ah yombul de jëf ju rafet nag bu ko yàlla nangoo day am firnde ba dem le 27 octobre 1886 fan la jaar Mbàkke Kajoor fan kan la fekk Serigne Touba suñu yàkkateeg ëllëg ne ko Ahmadou Mbàkke damaa ñëw dénk la njaboot gi ñaanal ma sëñ Tuubaa ne ko teewal ma takkale la ak tubaab bi defal lu gën lii mu ne ko Mbàkke warantuma ni man nga ko waaye sañatuma ni du man Kajoor gépp dan man yow ba ma ni sañatuma ni du man ragal de induma waaye nag Kajoor ak gépp dan man yow sañatuma ni du gi rek laa lay dénk waaye ku xool njaboot gi xam ni sëñ Tuubaa ndénkaane la réerul ndax lu baax njóobeen Mbàkke la fanaan lu baax Mbàkke fanaan na njóobeen doomi bàyyam ju naan gàkk amatu ma xuréja moo jur soxna Fatma Cubb man dégg Cheikh Modou Moustapha moom seen Cheikh Mbacke Gaynde Fatma càmm yàlla xadi te it Modou Moustapha mi woy juróom soxna Aminata Lo ma ko jur xarit maam Aminata la saaxat Fatma Cheikh Mourtala Mbacke may caatum Serigne Touba soxna Fatou Diop ma ko jur Amadou Codé Balla ko jur Amadou Koddu Balla Amadou Koddu Balla Matar Ndumbe Soxna Mbaye géej ba Matar Ndumbe Soxna Mbaye ak Sakho Soxna Mbaye ak Mamad Soxna Mbaye mu dun Sakho Sakho Fane mi tëgg dënd taal jàngu yi kon fii ñu taxaw mooy Sénégal fii ñu ñëw mooy Sénégal dëkk bi nag dëkk la boo xamante ni bi bu nee Kajoor tudd Cilmaxa xel yépp dem ci Njóobeen Sakho Fane mi mu waral lépp mu ngi tëdd fii ak njabootam gépp nag kon ñu ngi leen di wax ni ñu ngi sant te ñaan lii askan wi àndandoo te ñu ko sos nag di seeti Lat Joor direct bu ne Basiiru Lat Joor ko ma sekk ma sekk Lat Joor Ahmadu mi Seex Kumba Daaro ko jur Ablaay Daaro ma sekk Lat Joor Ibrahima Diop mii Abdou Séer baayam Séer Mati Lat Joor Cheikh Moustapha mii toog toogal fi sunu baay Abdourahmane Abdourahmane Diop kuy baayam Matar Numbe Abdou Abbas moo Mamat Soxna Mbay ma Mamat na Mbay ak Matar Numbe Soxna Mbay ak Sakho Soxna Mbay mu jur la joor mu duñ soxna ñaan Sakho Fatma kon Sénégal a fi teew yéen nag ñu ngi leen di sant ci déplacement bi ngeen déplacé ñu bokk ñun bis bi nga xamante bisu bisu askan wi la.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 dëkk bi benn kër la waaye kër gu ne dafa ami néeg néeg bi fii nu nekk mooy kër Basiiru Jóob sëñ Basiiru Jóob moom Marsek moom Lat Joor fii moo doon këram ah ginnaaw ñàkk nekk waajuram di Marsek moom yor na dëkk bi lu yàgg yàlla jëlee ko mom mi may kërëm man naa ne daane ki première chef du village man nañu mooy ma doon première chef du village dëkk bi borom moy abda bass abda bass bi fii nekkatulub dëkk ginaaw fatou la dior dix ans Lat Joor ngi génn àdduna mille 1886 1896 la Abdou Abbas sancaat dëkk bi moo jur Maxtaar nu Ndumbe mi jër Abdourahman mi borom dëkk bi waaye li doon baax fii ci Kajoor dëkk boo fi demoon nga fi fekk kër sanc dëkk bu mag fa ñu naan ko borom dëkk ba doomam wala rakkam wala keneen kum juboo ci dëkk ba moom la daan jox bañi wax borom dekk ba exi chef village kon bay ma sek mom la mam la Abbas ma ma tek loxom ci dekk bi ginaaw bu mu ko fekkse mu yor dekk bi ba mu fi jógee Basiru yor dekk bi kër Basiru moom mu ci lañ tok bo kër nak mel na ni këri njóobeen ni yëpp nek ci Cilmaxa fi nga tok am néeg la ci kër yi rek way le ben kër la ah fi nu tok ci jotaay bi nak ñi leen fi nekkal nga xamni ne ci biir kër gi lañ juddoo yoro fe Axmadu Jóob mi ala seex rakku basiru moko jur ablay Jóob mi Fàllu rakku basiru moko jur ñok basir ñoo bokuma xam kon ñoo teewal njaboot yëpp di sëti Lat Joor yi ñoo leen teewal fii ci jotaay bi ci nii bi ñoo fi ne alaaji Abdurahmaan mii boroom dëkk bi ki ki mag ki ay doomam ka ca topp di Mahmoud mi ngi nii toog moom itam taxaw fi taxawaayu ñëwal ñëwal ñëwal ki ci biir ma jàng jiite ñëw ci biir mu ngi taxaw fi taxawaayub nun ñëpp njóobeen gépp kenn ku teewoon ci ñi ma wax rek teewal na njóobeen gépp ah nu fekk fii Ibrahima jóob moom Abdou Séer moom Séer Séer Lat Joor kon Ibrahima jóob mi ngi nii toog fekk jotaay bi nekk fi nu fekk fi suñu bokk yëpp suñu bokki curangeen suñu bokki ñaxal suñu bokki ku xam dëkk bi ca cosaan ba léegi xam nga mbaalo sare bàyyi alaaj ndëri sare alaaj ndëri sare moo jur Modou Kane mi mu toogal fi bokk yëpp nu fekk fi imaam daam ndongo daam faylu ndongo noo bokk ndey waaye ma wax leen ni ku bàyyu ci kër gi la ndax jëlee naa cër bi nga xam ne moom la sëñ góor ndongo mi ko jur seq ak waa kër gi waa ñoom la fekk mag ñi fi neen waaye dama lay wax ne madu faylu silla mi jur ndayam mok ma sek mi jur mi meññ kër gi lenn lañ won lool ñepp xam nañ ko ba tuddentey doom ak nek seen biir mo leen fété won ci walu cëriñ gi ñu fété ci walu gi ci dess kon mën na ni eh, kajoor gep am nañ ku leen togal ci jotaay bi sëriñ bu yàgg ci Cilmaxa yi sëñ sëñ Andi nekk fii ak sëñ Adama Ndiaye ba siiri siis doom mi ngi ni toog nu bëgg tëgg suñuy kàddu nag ci sant gone yi nga xam ne ñoo organisé bi li euh, war a mën am wante di ñaan suñ boroom mu muccal leen ci pexe seytaane ba liñ bëgg ñu man koo def luñ ci am ren bu beneen yéenoo buñ koy def am ci ñaaram loolu yàlla na ko yàlla def daraja yonente bi barkaru xaan barke xaadima su suñ sëriñ naa jox kàddu gi nag ay imaam daam ndongo a ah, mooy imaam bi noo bokk ndey maa ko mag mu ko yónnee day dem dama koy jox kàddu gi defé ñaan baggal toftal ko ci kaamil yi jàngoon dinaa jox kaddu gi Mahmoud Diop ba mu Alaaji mu sànni ci kaddu yo xamni luy gëna rafetal li ko nuy def mo marché ak ñom teet mo ngi am am and ni mi ngi joko ñoo waxtu ne. biram barkel na mag ñoo seen bir barkeel ndax juma ji nga xam mom lañu jëk def ci ma jakk ji mom ñing ko ci 1896. ab euh, maam mi jaxate ci boppam moo ko rëdd moo fi njëkk julli moo ko rëdd sama Abdou Abbas boobu la fi ñëw jumaa ji dem na ba daaw jéeg euh, jàkka ji nekk na néegum ñax dóor dóor jóge ci jóge ca dem ci néegub ñax léegi dem ci tàppaat jóge ci dem ci baraak léegi ci dem ci tabax bu ndaw jàkka ji ñu ci julli ba at mi ñu génn lañ jullee jumaa ji muy jumaa jooju jumaa ji njëkk njëkk ji njëkk tabax ci dëkk bi itam mu ne ne ñu toll ci mu mu ram ràpp ñu di ko defaraat ala Cheikh Diop ci initiative mu mi jur Ahmadu ñoom ñi ala Cheikh Diop ma sekk la joor wante nag maa ngi moom suñuy ndey daa jóge ci sëriñ si xam naa loolu moo waral initiative initiative yooyu di di di nu kii ndeyam waa ñaxabu ci la la dëkk soxna kuma daara waaw moom moo juma jumaa jooju ci moom la la la la la ci initiative ànd koog waa dëkk bi ci lañ tabax jumaa jooju man mi ci samay xalaat ci sama ndigalul kilifa Abdou Abdourahmane ci lañ defe jumaa ji julli nañ ko ci ci ci yàggut ci ci baraxlu wi foofu histoire dëkk bi daal foofu la tax mel na ni mag ñi daal seen seen ki barkeel na ndax mel na ni mujj nañ lépp nag lepp nak garab seigne touba mom mo fi ñew rek xëri mi commencé toj na yonent bi sama ki wax na Ibrahima Diop légui moom leeral na ko Ibrahima Diop moy birima code maram moy borom lewu mo jinn code maram code maram mu jur sil la mu jur ma birima dafa ne fii la xeexub la Joor mën naa ne bu doon soldaar yi léegi mooy capitaine waaye walla général waaye lew na ak Mbàkke Kajoor ab tool rek dox diggante bi sëñ bi feeñ ci Mbàkke Kajoor birima men mi leer gi du ko kii mu daal dem jébbale sëñ Tuubaa keroog ba jóge Sàmba Saajo sëñ ñu seddu ko ci Sàmba Saajo juróom-ñeent ñu jigen ak juroom ñent ci góor ak alal señ bi ñewé bam démé señ bi di ko señ bi ni ko hmm? dañ la nangul señ njébbal wayé nak samba saaju ge ngeen demee woon la ngeen fa jëloon da ngeen koy delloo ndax xéxu len fu won di jaar da ngeen fekkon ab julit bu bu buy xeexal lislaam kajoor ruuxale leen ak mom ngeen xaas lola moom loola magi sëriñ bi amoon nañ ci diggante ak sëñ Touba boo toppee téere yi da nga ko gis diggante xaalis mi jaxat ak maam si Anta Sali baayam ak ñu ñu tasaloon jamono amoon nañ ci as as lënt ak sëñ Touba ndax ñoom daanaka xawoon nañoo daganal sëñ bi nag ñëw na leen daganul sama maam nag wérantewul daa daan sëñ bi li mu wax danaa ko def ba mu delloo ca kër ga dañu ju ñi ñi ma ñi ma séddoon ci Samba Sadio bu dee góor bu leen kër gi neexee nañ toog bu leen neexul nañ dem sëñ bi ne moom eh, wërta am bu dee jigéen nañ toog góor gu fi gis jigéen joo bëgg jigéen joo bëgg la ñu def ko ñu teg ko ci lislaam nii la daal doxali tuubam moo tax sëñ bi del ko yu bare boo demee ci mëneenu baay ba xadim Ibrahima Diop mu ngi fay fekk mooy birima ko du maram moo moo meññi law nekk ca Touba Abdoulaye Diop lew na moo ko joxoon sëñ Touba ah sëñ Abdoulaye Diop na mooy mooy lew na Touba am nga cay bokk waaw léegi bi mu tuwee mu ni sama doom yi jigéen ñi ñi fi des du ma leen fi wàcc su ma leen fi wàccee sama bokki ceddu yi dañ leen bëgg si te këriñ du jege safara kon fii waat ma naa am mu jël sama maam di ko yët xaalima jaxate mu ne ko feesal naa waaye ma taar ma mare ma jaxate mi ngi ci mi ngi fii di sama jarbaat te feesul dama koy jox ma rem mu jël kenn ki yóbbu ko sëñ buubu njaay ndukkumaan boo demee fëri fëri njaay ay sëtam nga fi fekk ak fas gële jël kenn ki yow nit yóbbu ko bayti doomi jigéen yooyu noonu la leen ne leen leen joxe sëriñ si man mi loolu moo ma yóbbu ñaxal nit na fu mu juddu ñu yare ko fa la ëpp doo man fii nii ñi la bàyyee lo, xé affaire li ci dess may man a feel ak ndax fu dama wàjju ñu yar ma fa yar dafa dëgër jangal nañ ma alcorane jangal ma fiqh yar ma ci daal motax tax mom moom dañuy ànd ni maslah rek waaye bokkuñu ñu ñu sét ba dafa yom xol xana di rafetlu rek li ñi nga xamné organiser nañ ko ndax li yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon rek dana won khairu nasi axdamuhum linasi ki gën ci nit ñi daal ki nga xam ne mooy rendre service doomu aadama yi ci loo xam ne lottoon nañ ci defal ko seen bopp nga dimbale leen ci nee na mooy ki gën ci doomu aadama yi kon léegi lii lay dugg ci jëf jooju seriñ Tuubaa it boo demee ci Masaalikul Jinaan téeram bu siiw boobu nga xam ne mi ngi ko taalifoon ci ay 1883 82 83 jamono yi nga xamee ne Maam Mor seli nelaw na fi ci dàqale 1883 mu jóge fa dem <clears throat> fële ci xuru Mbàkke fekk boobu mi ngi taalif téere boobu Masaalikul Jinaan muy téere bu am solo daf caa wax ne yowmal xiyaam sax suñ borom buy woo ña daal liggéeyal doomu aadama yi di leen xettali di leen dimbale ci lañ mënut nee na ñooñu la ñuy njëkk a woo ne ana ña daal liggéeyal nit ñi ñu ne ñu ngi nii ñu ne yéen a njëkk a dugg kon loolu loolu loolu am na solo li ci toppaan moo di bokk na ci liy jëmbat bo ak bokkit ci loolu ci la bokk. te xam ngeen ne li jëm ci consultation boobu gratuite boobu ngeen wax doomu aadama balaa man dara wér-gu-yaram a ci jiitu te xam ngeen ne feebar moom bari na fu ne foo dem ma nga fa ku lay jàppale ci loolu ci li ci dimbale te mënuloo ci sa bopp dara kee dem def ay pexeem ba indil la loola amel nga ko cantu tey amel nga ko cantu ëllëg ndax jaamu yàlla sax mënoo ko def te wéroo liggéey mënoo ko def ta wéroo jàng sax mënoo ko def te wéroo kon loolu wax dëgg yàlla fokk ñu gërëm leen ci sat la ki tax ci turu ngeen koy defee tam jàmbaar la joo xam ne ju ñëpp xamoon la lim liggéey ci Sénégal ñëpp xam na ko fi mu jaar ak Serigne Touba ñëpp xam nañ ko xëy na jataay bi mayu ko du ma historien waaye fi ma ko jàngee man ci wàllu diine laa ko jàngee relation ak Serigne comme jataay bi mayu ko nag mënu ma caa waaye xam naa ne ko amoon ngërëmul Serigne Touba la te bi muy dem am na lu muy yóbbaale ci lu bokkoon ci Serigne Touba te defe naa kenn ku ci noon ci noon soo ngee ngéejoo woon booy dem yóbbaale loo xam ne bokk na ci Sëñ Tuubaa ndax ko yàlla gërëm léppam la kon lépp lu ànd ak moom dem jàpp nga ne fa mu nekk lu ko yàlla gërëm la loolu lu am solo la te ma damay xel njaboot gépp yi jàpp nañ ne jàpp ne bokk nañ ci loola ñim doon bañal it ñëpp la doon bañal li tax jamono yi toll fii mu toll loola ca loola ca la bokk kon man li ci li ma ciy wax loolu rek a wax. yéen ñi nekk ci jataay bi yéen ñëpp kenn ku ne ñu ngi lay nuyu ci seen tur ak seen sant ah dëgg la sax ndax bu bàyyi tafa teewee teewal alaaji abdourahman sax waruñu ci wax dara waaye nag ëtt bi am naa fi cër boo xam ni sii dégg nga war naa ñu bu ñu fi ñëwee ci kër baay gi ah war nañ cee am kàddu kàddu yi nag euh, li nga xam ni sii dégg nga moom la ngeen jëf euh, ahmadou ak basiru ngeen initié ko ñoon day rafetlu naa ko lool ndax rafetlu gi itam boo ko seetee ci fi ngeen ko defee ku xam diggante maam Lat Joor ak diggante mag Serigne Touba ñu jóge ci màggalu Serigne Touba ngeen wàññi ko ñëw di defal lii euh, maam Lat Joor yaakaar naa ni c'est la première fois mu am man mosuma koo dégg bokk ndax ñëw fii di ko wàcce li kaamil wax dëgg yàlla yéen ci la ko njëkk dégg ci laa ko njëkk a gisee itam. kon nag xam naa ni loolu lu ko li seen jëf ji rafet na lool ndax dafa sës si màggalu Tuuba boo gisee sax euh, mu demee nii màggal gi dafa xat nit ñi jóge ci coonoy màggal gi waaye kon yaakaar naa ni dëkk bi kenn du fi xaj ndax képp kuy def lu baax ku ko dégg ñëpp dinañ sol seenu dàll dégg nga ñëw ci euh, li ci gën a tee rafet itam journée consultation gratuite bii ngeen di def lu dëkk bi ak tund wi soxla la ndax nit ñi wéruñu bari na ci ñoo xam ni sax dañoo ragal a dem ci docteur ngir ñàkk moyen pour am garab a ah, léegi nag ngeen indi fii docteur itam dégg nga ñuy faj nit ñi di leen ko may kon yaakaar naa ne li ngeen xalaat ci maam Lat Joor kon rafetlu nañu ko torop ndax nit itam man na kanamam waaye nit ci gannaawam lañu koy nekkal nekk gii ngeen ko nekkal ci gannaaw itam commencé ko ci pour tund wi loo fii commencé nag toujours nii lay tàmbalee waaye bu soobee yàlla ak yonent bi da ngeen dem a dem a dem ba am ci lu gën a lu lu gën a kawe lii loolu daal jàpp nañu ko ndax liw mel nii daal mosuñu ko fee gis ah am ngeen ci cant yi itam ndax ba ngeen koy def ba leen yàlla joxe xelum ngeen xam ni seen waajur a ngi fi di alaaji abdourahman ngeen ñëw si moom bi ngeen ñëwee si alaaji abdourahman ba ñu demee yow ahmadou ak basiru la moom itam la muy def ci daan ko def itam moom daan ko def démb defaat ko tey itam mooy loolu ngeen dem leen ca Baye Moustapha Diop lu ñuy lijjanti ci samay biir lijjanti ci biiru kër gi ak biir njaboot gi moom bu ngeen ca demee mel na ni dem ngeen ci moom moom nag amal na leen cant gu wér mu ngi leen di ñaanal itam yàlla guddal seeni fan yàlla gën leen a boole itam ba nga xam ne si ñëpp doon benn. keroog sëñ Abdou sama di wax naan ñaanuk sëñ Tuubaa day sar. day sar day sar ndax sama baay bi sëñ Tuubaa ko yar moom lañ ko tuddee. moo ko yar bi mu ko yaree mu booba sëñ Tuubaa leer gi ñëw na euh, mbooloo mi bari na mu yëkkati ko jox ko ku ñuy wax sëñ Amady Lamine Diop Dagana moo bind Inwaaru Nadim moom lañu l'abreuvoir du commensal moo ko bind sëñ diggante Maam Lat Joor ak euh, sëñ Tuubaa euh, kooku leeral na ci lu bari saa baay kooku ma doon sëriñam sëñ Amady Lamine Diop Dagana moom mu ko booleel kenn waxuma man am na lu ma ci sama baay wax am na boo xam ne nii sëñ Amady Lamine Diop Dagana euh, dafa woo sama baay ni ko xam naa sa xër ci yow ci man àttan naa bu ma fi jógee nga nga am lu ma tiim bu ma dara tiim ndax bi mu faatoo sëñ Amady Lamine Diop Dagana moom bi mu làqoo dafa ni woon bu fekkee ki fi nekkal sëñ Touba jëluma yóbbu ma Touba bu ma kenn yóbbu boo def leen fii la ma sëñ Tuubaa waxoon waaye ki fi nekk sëñ Tuubaa su ñuy indi leen ma ko indi yóbbu leen ma ci kooku bi nga xamee ni làqu na ñoom sama baay dem ci sëñ bi bopp boobu ndax sëñ Amadou Lamine Diop Dagana waxoon na sama baay ni ko bu ma fi jógee ku fi nekkal sañ Tuubaa rek jëlal njaboot gi yóbbu bi nga xamee ni sama baay dem na ci sëñ Fall wax ko ko daf ni ko indi ko ci waayam jii loolu la ko indi leen ko ci waayam jii muy sëñ ñu indi ñu indi sa ñu indi sëñ Amilaa mu indi ko mu yokk ca ni damaa bëgg bu ñuy nodd bu ñuy nodd ci jumaa ji ma koy dégg loolu jaroon loolu itam lu jaroon a wax la sans papa jumaa ji moo ko tabax waa dëkk bi jàppale nañ ko ci jàppale nañ ko ci waa ne moo ko tabax ci lu wér waa dëkk bi nag jumaa jumaa kenn rek du ko tabax il faut am ñu barkeelu même Ndiouga Kébé sax jumaam ga booba bëgguloon dañ ciy barkeelu jumaay Tuubaa ji bi nga bàyyi laat ne bi mu sasee dafa jëw nii day day tabax bàyyi laat ni ko du noonu de man mi mën naa ko waaye ni mbirum sëñ tubaa ku nekk ñun ñi ñëpp ku ci nekk wóor na ma ni ñun ñii fi ne ku nekk am na nga loo ca def parce que mbirum sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa moom lu ci waay def sa bopp nga ko defal ndax moom li gaa yi wax rek boo ko defalee loo mënut mu defaloo la jomb boobu boo ko lebalee xaw ma euh, boo ko lebalee euh, ker mu jox la bëccëg mu jox la guddi foo làmb muy ker kon loolu lu c'était bon apprécié vraiment maa ngi sant euh, bàyyi Tafa ndax aalu aalu na ma sa Baye nee na ma soo daa wax ci sëñ ba aalu loo ci ñaan yàlla may la ko kon nañu ñaan yàlla yàlla faj suñuy aajo ci barke sëñ tubaa ndax moom la ñu yaakaar yàlla na yàlla def li gën ci ñun itam dëppoog li nu gënal yéen ñi nga fi itam ñëw ngeen ñëw seen tànk yi يالا نيك تانك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وقونا وكن لنا وحبلنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم وقت بحاجة كل مسلم أسبل الستور أسلع أمورك كسر قرب لا كتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عسيم بعدد صفوف الملائكة وتسبيح وتحميد وتمجيد وتكبير وتهليل من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة صلاة تملأ الأزل والأبد السمان كان مضروبا في كل عدد بعدد ما في علمك يا الله يا واحد يا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جريف جريف